xam ngeen nit bu ne am na ku ku nga bëgg am nga ku nekk sa xol waaye man kii moo ma neex te moo nekk sama xol te moom laa bëgg te yàlla tax kenn mënu si dara billaahi wallaahi dama laa bëgg te yàlla tax yaa ngi sama xol yow mii yaa ngi sama xol te yàllaa ko def kenn mënu si dara